yàlla fay Karim yéenay gàttal mu kañ di ma fàtte mbaa di woo leneen waaye man seen borom maa ngi nii ci seen wet demal seeti alquran wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani man yàlla aji wuyu laa ma tas yoon ak sax sàkku ngeen ko yow yàlla yaay tarib yaay latif yaay aji ñeewantal ji yaa gën a gaare dul jalaal al ikraam wal qariib wa latif wa samaa as'allah subhanahu min fadlihi ولم يرى في سيامي Seydina Muhammad kooku mooy yeneen li tax ma way way ma tax ma bay te léegi dafa maa sabab ana sopp yéen bi ma lee ci sunna te bu sunna kon noonu lu bon bon sa jëf Alaaji Maalik ku sëpp bàyyi sëñ Babacar Si loxo ca kaw Alaaji Maalik jàpp ba rëy na laay Alaaji Maalik sër rëy na bàyyi sëñ Mansuur Si al xaw du tuddee ma suuru ndax ma dugg fa laay te du ka daana di safra xam ne jëm salima yaa moo di bala xaw di seetu eh. wal mayaa di man soore amoon ci daal tàll ba ñëw mani ana taalibe Seex yi ana sopp Sëriñ Mansour Sy Malxaw bi bismillahi may bëgg a way waa ci jar di way anala boo xamul ki may bëgg a way mooy abi ca Tiwaawan ana Tijaani jooy nanu la jooy xol bëgg xaat ci wax ko jàngal baayu moom baaba mi ngi naan mooy abe mi jëkk jooy ay waay ñaari al amin fi am fi ci àddina al amin ci midina al amin mi jëkk jooy وسط العزيز إنه يجاي بطلا أي سيد عبدو يوم يجاي بطلا يديهنا بفف خلم باي وسط العزيز Tiwaawan jaay nanu la jooy xol bëgg xaaj ci wax dëgg la

faama mu dal faama. ay meer yu koy jël. mu dal faama mu dal faama. ay meer yu koy jël. mu dal faama mu dal faama. ay meer yu koy jël. bu dul sukk bul xaalis. ci borom bu nekk daal di borom màtte bi sant yàlla yéen te bàyyi yéen daara jënd rajo jënd daraay. Sëriñ Babacar ana Tijaani taalibe Cheikh ana Tijaani ana Tijaani ana Tijaani ku bëgg Sëriñ Babacar Si Maalik sa xol leen di màttal borom bu nekk daara bi ay Sëriñ Mansour ay Sëriñ Mansour mu ndaw borom الحاج مالك يا خائز البحر للأخلاف إنهم أصنام بأدوة أخلاق قد تنارد سفرا قلبكم سلما يا عمود بلغوا di nuyu ñi ñu fekk ñëpp di sant yàlla wax baax nag di julli ci eh, wax ji nag ñi jël kàddu ñu bëri dañ cee juum waaw ñi jël kàddu tudd ma ñu bëri dañoo juum parce que sama toogee fii ministre fi Matar Ba moo fi toog donc bu ngeen nee ministre Matar Ba rek yàq wax parce que ministre Matar Ba bu fi toogoon gouverneur Thiès dina fi wala préfet wala ab sous-préfet bi ma ñëw kenn yëguma parce que sama njaboot laa ñëw seet si loolu loolu dama bëgg nit ñi di ko ràññee dafa am dox boo xamante ne république bi mooy dox mais dafa am dox boo xamante ne li ëpp doole te nekk ci lislaam mun a boole ñu bokkul ngëm-ngëm mooy kóllëre ak teranga parce que boo seetee ku dul jullit sax teranga ak kóllëre loo ko dal dal sa lu am am solo ngi noonu te nit ñi di ko xaw a kon tey daanaka sama doom moo xew la yàgg di def lu mel nii may yónnee ba ren ma ne ko danaa ci ñëw bu soobee yàlla ñu sant yàlla nag ñu mayee ñu am jot ba ñëw toog fii ci ay biir mbokkam mu féeteeg ñun te gor nag bu nit féeteeg yow da ngay nangoo féeteeg gone la waaye mënal na ma loo xamante ne xeebu ma ko ba ma ko xamee ba léegi amul fu may teg sama tànk ci réew mi mu yëg ko te jiituwuma fa da ngay wàcc ci avion Ziguinchor gis ñu bind géwélu Matar ba nga tourné ku ma na ba yor nga dem feneen fekk ko fa te doo ko jox paas ku la defal loolu boo ko fonkul am na lu doy di ci yow moo tax xoolewuma ko xele xoolewuma ko ko am wala ko amul dama ko xoolee ku ma sopp te ku la sopp sa mbokk la Maxtaar sama xarit la sama rakk la waaye mënoon na ma booleeg gumba gumba bu amuloon fulla li ne ci moom ne ci moom bu ma booleeg moom it du yegg si fii kon kuy gërëm gërëmal xale bi gërëm ko ci taalibeem gërëm ko ci mën a wax ak mag du man rek a ko sopp nag Sénégal yëpp a ko sopp xam naa sax dina dugg ci bureau di di wuti mbir ñu ko yow géwélu Matar Ba est-ce que mënoo bind bi géwélu diw beneen mais du ko def parce que en réalité ànd day dëggu nit da ku ne ku ñëwul pété doo am dara képp koo gis tey fii suba fële bu jógee fa mu newoon di wuti feneen ndax gëmadi yàlla fekk yàlla wutu ko fa mu jógee lay def yëpp moo tax ci li mu nekk mënuñ ko cee bañ fekk moo tax kër gi xaw naa ko min nag ñëw naa jàlle si ko fii euh, ñi xamul sax naan waaw mais ministre bi lu mu si fii euh, gumba ko tax a jóg gumba nit la gis nga nit kenn du ko xeeb nit kii mu am soxla ci moom mu fajal ko ko kooka gën ci moom ki soxla ministre kayiti ministre lay wër waaye ki soxla caaf kay jaay caaf ca boobu koñ waa koy donc yëf yi xeebal xeebal te mënu fi am suñu xarit la suñu mbokk la boole nañ ko ci suñu mbokk nit ñi nga xamante ne samay doom bu ñu xewle woon moo war a leen taxaw noonu laa ko war a taxaw loolu moo fi andi Cheikh Sadibou Samb ma lay xam naa moo fi andi maître bi xam naa moo fi andi ñi ñu àndal yëpp Cheikh sëñ bu soobee nga xam ne daaw moo ma fi représenté wala daaw jël kon li ñu koy wax rek mooy ndaw la na gën a góor loo defoon ci say waajur bu ko xeeb yokk ko ñaan du doy dem naa ci sa yaay mu seede ci sama kanam waaye ndaw kenn du ko ne yaa fi ne defalagoo dara sa yaay lépp loo ci mun def ñun buñ mënoon delloo li ñu yor ci ndogu tànk yëpp suñuy waajur dellu si suñu kanam ñu def ko waaye yàlla dogal na lii xew fekkewuñu ko kon yéen ñii xele nekk ci yoon wi loo leen mën a defaral seen waajur defar leen ko te ngeen respecté mag ñi bu ngeen ko defee dara du leen jaaxal ci kon suñu teewaay fii comme ni nga ko waxee fii ci kulli wax nga fi nag xam nga yow ay relation extérieure moom bu buñ la ko joxee dañ xam ne xam nga gars yi rek dinañu ci dinañ la recevoir comme ñi la war a recevoir ci lañ bokk dinañ la xool effectivement luñ la mën a jàppalee mais daal li ma bëgg nga jàpp mooy yàq maxtaan duuf mi ak xale yi ci waawoon jàppante leen nekk benn te ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi parce que lu fi nit li ñuy def ni parce que jàmm am ci réew mi leneen bu amee ci réew mi ñi ko fi andi sax duñ jëriñoti réew mi kon chaise boobu nga toog waroo ñaan mu damm chaise boo yootu danga war a fexe muy dëgër ba boo ci toogee mu attan waaye soxla dara ci réew mi taal ko wala di woor nit ñi ci ay jafe-jafe loolu ba am fulla du ko def bu gëm yàlla du def mais lii nga def dañ la ci war a sant te xam ne jamono lu mu tëradi tëradi lii mooy liy dëgg kon nañ ci continuer tey tànk yaa ngi koy def dinañ la ci jàppale tànk yaa ngi koy def te suñu bakkan nekk fii ñu nekk fii dinañ ñu ñëw wala ñu jàppale en tout cas kontaan naa ci yow sant naa la gërëm naa la yàlla ma dimbale parce que boo féete woon ci man ba pare di def naka su dul noonu yi du ma la sànni boo doon def naka su dul noonu te féete ci man ba ñëpp xam ne ci man nga féete du ma la sànni te loolu dugg dinaa ci comme yàlla dimbale na ma nag ba ku la gis sopp la nekk seede sa yar seede sa bëgg say wajur di tantal yonent bi dama ciy sant yàlla bu baax a baax di yàlla yàlla la sàmm njaboot bi yëpp maa leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. nuyoo di la siyaare tey bisu gumbaante ku la fekk du lox loo fi wut sa diggante gumba ndax lépp ci yow la dooree ba ba diggante motar ba diggante ba autorité ba tey ci yow la dooree sa diggante gumba. waaw gumba tey suma rak euh, depuis xale mu tax ñu ñëw man suma yeneen i xarit ñu yàgg ñu ñu féetale lii du tey vraiment mooy suñu rakk bu baax tey bi su fierté la ci man dama sant yàlla ndax rëccuwuma li ma ko doon xamale ay nit yu baax ministre Matar ba wax na ko léegi tamit tey duñ ko doon boole ak nit waaye moom it yaafu su ci ànd boobu yaafu su ci doxee na ko waxee na ko jëfe na ko amaana sax jàpp na jàpp boo xamante ni que man mi ko booleeg moom sax jàpp ma ko loolu nag sincérité la rusloo moo fa daal kontaan nañ di ñaan bi soom bi yàlla na koy yàgg a féete anniversaire bi yàlla na koy yàgg a féete ci barke Seydina Mohamed di profité na ci occasion bi di remercier le ministre de sports Matar nit ku baax nit ku mën nitam nit ku mën a sagal nitam maa ngi ñaan yàlla su tey bii lañu tirage coupe du monde Sénégal bokk ci poule ak ñi mu bokkal poule Sénégal yàlla na nekk en ci poulam Sénégal yàlla na finalu Sénégal yàlla na jël coupe du monde ci barke Seydina Mohamed barke Khalifa Babacar Sy ndax la Messi dem. sa frère sa rak gumbante lan lay doon. dama ko wax mu yokk góorgóorlu rek parce que li yombul ku dem macha allah sa morom ñëw ministre des sports dem na Ablaye Ndiaye ngal ku dem Ablaye Ndiaye ngal ku dem honorable député Yaay Diallo ñëw yeneen i nit dinañ ñëw. loolu nag soo nekkee ndaw ci dëkk yàlla may la ko da xam li nga am dañuy ñaan dama koy gën a ñaax rek na gën a góorgóorlu yar bi mu am na ko gën a téye li mu liggéey na ko gën a jàpp ak fukki loxoom su ko defee yokkute rek la ci am incha allahu rabbi da ngaa baax yéen a bëgg Tiwaawan merci beaucoup Tiwaawan nag lañ am mooy suñu pari gumbaan dëgg la gumba dafa nekk sama rakk di sama xarit nekk ko xam ni fierté la tey ci Tiwaawan ndax ci lim nekk bi ci yëngu fullaam ak moo tax mu yegg bu amee bés dañuy ñëw dooleel ko dañoo ñëw dooleel si Gumba Anta dañoo ñëw taxawu ko ni mag di taxawoo rakkam ni mbokk di taxawoo mbokkam tey Gumba Anta lii ñu ñëw fii def fi tey luñ ko fay la parce que Gumba tan xamluwul kenn Gumba xeebul kenn li muy doon doon xale yëpp dafa xam ràññee Gumba dafa xam ràññee xam na magam xam na kilifaam kon bu amee lii tey ñu dañuy ñëw marqué suñu présence pour jéem ko fay bor gëm nañ ni sax mënuñ ko fay dañuy jéem di ko ñaanal nag ndax xale bu nekkee ci yoon am jom am fulla bëgg dëkkam gëm boppam da nga koy encouragé di ko ñaanal bu xewlee nga ñëw marqué ta présence soutenir ko mu xam ni wéetul gumba gumba Tiwaawan la gumba Sénégal la ndax tey boo xoolee ñi ñëw ñëpp bi nga xam ne li muy doon doon xale yëpp kilifa la ci lim nekk ndax ku déplacé ay ministre déplacé ay directeur macha allah dañ naan laf cat rek yàlla na yàlla xeeb dolli en tout cas na xam ne man fierté la ci man tey ma ñëw fii waaye fierté la tamit ma ñëw jéem ko fay boram ndax lu ma mës a xewle gumbaa ci man kon bés bi non seulement sama bés la waaye tam na jàpp ni lépp luñ ci man rek dinañ ko def pour mu am ndam ndax mu amee ndam ñu am ndam loo koy dolli en tant que sœur lan lay doon boo amoon loo koy dolli en tant que sœur lan lay doon. mu fi mu teg tànkam mu bañ ko teggi ndax lu la yar mayul dara du la ko may nit ñi ñoo moom seen bopp sama tànk bi bu ma ko yëkkatee teg ko fii rek c'est parce que daf ma neex tey am na nu doon mel am na nu doon taxawee damay toog sama kër. boo gisee mu am ma am keneen ak keneen yaram ak tegginam moo ko ko may muy doomu Tiwaawan xam ko di ko doxee di ko waxee ndax doomu Tiwaawan fu ñu dem dafa am image bu ñuy incarné image boobu nag la gumba yor ba tey mu nekk suñu fierté kon dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat ak làmmiñ yokk ko ba mu yëg lii mu commencé yàlla nañu dem ba mu nekk ay ndami ndami ndami ndam ci moom ndax am na ñaanu jur am na ngërëmu ay magam ñun ñiy toog fii tey kon dañ koy sant di ko gërëm tey man mbégte laa fi ñëwee ak fierté ndax xale bu nekkee ci yoon tey mu dem ba am lii ay ministre di déplacé wu nga bokk ak moom dëkk boo ñëwu rek doo gor tey gumba basam bi ku ci teewul doo gor waaw loolu moo tax ñu ñëw fi tey. jërëjëf gumba teewaay honorable lan la def ci yow ak kaddu yi mu yëkkati jëmale ko ci yow. waaw teewaay mag ak yaay kii sama yaay la sama mag la honorable député Yaya Diallo ñu ngi koy ñaanal li ñuy ñaanal sunu bopp ndax loolu laa gëm. ma leen di seedeel nii ku sonn ci Gumba Anta la waaye ku sonn ci Tiwaawan la chaque jour rek mi ngi xool Tiwaawan nan lan doolee ay travaux pour jàppale ko dëkk bii di Tiwaawan ku bàyyi xel Tiwaawan la fee ca ensemble ba lu mu fa nekk rek Tiwaawan la fa nekk moom sama mag la sama référence la tey sama bis bii mu ñëw muy le 1 avril du ma def lu dul rek di ko ci ñaanal ci barki Seydina Mouhamad may tantal honorable ku baax la. macha allah baax ñëpp na la yàlla sa jàmm yàgg yàlla na am ndam ci li ngay yàlla la cet sàmm la barke yonent bi Malick ba tey ak Dakar Buzz ñu ngi ci bisu Koumbaanta bi ñu leen koy rek sar bu sàmm yegg si na waaye barkeeloogul tey daal li waxoon rek tey ku nam ay way tey boo ñëwee ci bis bi di nga dool ay way kilifa yaa ngi ñëw par benn di dem gumbaali tool nag yàlla na ñëpp am jàmm ak Dakar Buzz yàlla na ñëpp am jàmm jërëjëf frère la ak frère na mais bàyyi nga lépp ñëw tey boo amul ko dolli ci lu mu gën a mën a téye nit ñi lan lay doon. waaw mais c'est normal ñëpp ñëw tey parce que Coumba du tànkam lu kenn lu bu xat-xat day ñëw boo ko yëgul sax day ñëw donc euh, c'est normal tey ñu teewal ko donc euh, lii moo ko lebal nit ñi ah moo lebal nit ñi loolu moo tax ñëpp ñëw kuy député ñëw nga kuy maire ñëw nga keneen kuy def leneen ñëw nga moo ko lebal nit ñi quoi nit ñi dañ koy fay juste juste juste su kii yëpp lañ koy fay rek xolam lañ koy fay voilà. boo amoon loo ko dolli en tant que frère en tant que conseil lan lay doon. waaw mu gën a góorgóorlu rek mu gën a góorgóorlu jàppaat nit ñi parce que nit ñi bàyyi nañ ko xel bu baax xam naa ne mi ngi góorgóorlu mi ngi dimbali ay waajuram surtout te loolu dafa am importance mu gën ci góorgóorlu te xam ne loolu mooy àdduna quoi lu mu ci gën a góorgóorlu rek doyul quoi. merci beaucoup. jërëjëf mbokk internet yu Dakar yi di leen ko waxee rek ba tey ñu ngi ci Tivaouane ci programme bi nga xam ne mooy anniversaire Goumba Anta Dakar ba jóge Dakar ba Tivaouane ñëw ñëwoon nañ fi daaw fekk déwén ñëwaat nañ fi woote ñu wuy si la lan lay def ci yow. waaw maanaam xanaa bëgg rek ak sant yàlla bu baax jul ci san sangam bu tedd ba di Seydina Muhammad di gërëm sama ñaani waajur di ñaanal sama yaay yàlla guddal fanam. xewle gis say mbokk gis say xarit gis di jàmm dafa neex tey na damay sant sama baay Matar Ba le piment di siin di sant Ablaye Ndiaye Ngalgu di kontaan ci taxawaayam ci sama wet di kontaan ci directeur DMTA macha allah di kontaan bu baax yal na yàlla yokku garaate jàpp na ci bis bi directeur DMTA Amadou Tidiane Fall sama xarit di kontaan ci ku nuy wax Omar Bawo Junior jàppale na ma démb tey soog ñëw maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm Mamadou Ngom ñaa ak soxnaam aw ma seen fay teraanga bu bëri lan ma yónnee ni ma waajee ko say gan maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla defal jàmm man bu ma xewle gis samay mbokk gis waa kuli gis sama waa koñ damay sant yàlla bu baax di kontaan bu baax ci waa kuli di kontaan ci nabiyen yi fi ñëw yëpp maa ngi kontaan ci bu Samb sama xarit. honorable honorable député Yaya Diallo di kontaan Matar Diouf Habib Diagne Ablaye Mbuub Pape Khalifa Fall waa Kuli gépp sant naa leen gërëm naa leen particulièrement nag maa ngi sant at ëttu ngéwal samay mbok ndax lii su ma ko mënee rek samay mbokk ma jàppale. sa digganteeg monsieur Ba déplacé wu Dakar waaw Matar Ba bàyyi la man may doom. moom bu ma xewlee dama ko war a gis moom su dama kaa dama war a gis ndax moom jàpp na ma fonk na ma yiir na ma bàyyi na ma xel tey rek wane na ko tey ñëw na def délégation bu mag ñëw ànd ak forte mobilisation ñëw wuy si ma noonu ma ko defee noonu la ko Abdoulaye Ndiaye ngal ko defe ak ku ñuy wax Néné Tall Néné Tall ministre de la jeunesse xaalis bu bëri la ma recevoir bureau jox ma ko maa ngi koy sant di ko gërëm di sant Khalil Ndiaye président Macky sans frontière di sant Amadou Sall ñoom samay xarit lan yàgg nan maa jàppale di sant Waly Ballago Seck le centre du peuple di sant sama xarit yëpp macha allah. samay mbokk xanaa kontaan ci ñoom ndax bi ma xewlee ñoom laa njëk a gis avant ma gis kenn togg nan togg yu doy di gërëm samay rak ami kole maam Kumba Khalifa Omar Seck papa Njeng ak sama jerbaat Maguette Ndiaye sant na ëttu ngéwël yëpp ndax man dama kontaan di kontaan ci papa Nene sama xarit Andala Faye ak booy bokkoon ci staff bi yëpp mandaw kase ñëpp kontaan naa ci ñoom tey dama kontaan. kër ñu dalal nag daw si kër dalal. waaw ku nuy wax macha allah ay desi Serigne Pa Assane Niang daf ma yàgg a bëgg. yàgg maa taxaw këram fa la ñuy naanee ataaye fa la ñuy añee fa la ñuy defee lépp yaa xam li nga bëgg sa njaboot yal na la ko sunu borom defal ci barke yonent bi sant naa la sant sa yaay sa yaay maa ngi koy sant Daba Saw di sant ku nuy wax macha allah Ndeye Marie Sy di sant jëkkëram Mortala sant naa waa Kuli gépp sant naa waa Dakar Buzz aw seen fay média yi bokkul médiatisation yi bokkul site yi ku bëgg ku bëgg adduna bépp di la xool boo amee programme demal Dakar Buzz sant naa Malick sama xarit dañuy xuloo rek waaye sama xarit la di sant Fadel sama nawle sama mbok yal na leen yàlla fay te bi yan na ko yàlla yokk ci barke yonent bi gumba bool day tàggoo ci sëñ Moustapha sëñ Moustapha bu sëñ baa ba Babacar si Abdou sama sëriñ sama xarit ñaan gi yegsi na kontaan naa si Malick yaa tax ma ñeme. ana madame. madame madame nag léegi célibataire laa. tegal foofu sa baar. jërëjëf sa baaraam foofu kon. Gumbanta nii la ko jëfee woon di ñaan yàlla defal lu jàmm yàlla na ko téewee di ngi déwee ci micro bi Fadel bi ngeen jàpp ci kaddu bi Malick laa ci àddal bu déwénee a à déwén à